à l'attribution de ces marchés sans pour autant que ñu mettre en place comité bi nga xamante ni moo war a toppatoo affaire bi ça c'est ça c'est sur la forme pour vous dire que quand même il faut que que ñu xam munoo di oo ay nit chaque fois di waxtaan ak ñoom te fekk yow avant ngay waxtaan ak ñoom yow jël nga ses dispositions ba pare ne ne loolu aussi xel moo ko nanguwul donc moi je pense que li ñu waroon def avant lii yëpp franchement président defu ko te loolu aussi sa pose problème dans un pays mënuñu à chaque fois bu ñu waxtaanee waxtaanu nawle après yéen ngeen teg ko def li leen neex alors que yow conditions yi nga teg peuple bi yëpp peuple bi ñu ngi koy accepté malgré la souffrance parce que tey ñëw nga def couvre-feu c'est dans des conditions yoo xamante ni ñëpp xam nañ ko ñu nangu ko nga xëy suba def plan d'urgence euh, euh comment dirais-je euh, état d'urgence état d'urgence bi nga ko mettre en place ñu nangu ko avec tous les problèmes mais nga xëy nag à peu près léegi nag maintenant li nga xamante ni ne moo leen war a accompagner mais nga def yëfoom yaa ma neex ngeen def du n'importe quoi te réew mi ñi koy yàq mooy teefenke yi il y a trop de teefenke dans ce pays xam nga luy teefenke yow ne na <laughs> nga dem daral ba war a jënd xar borom xar yi toog fële am kenn ku nekk intermédiaire <laughs> loo nar a loo nar a fayee cinq cent mu ne ba fay ma 1000 francs il y a trop de TF1 dans ce pays dans le secteur des des des des business dans ce pays et dans le secteur des affaires. et loolu loolu c'est loolu loolu c'est pas bon regarde ce qui se passe avec le riz un vendeur de de sandwich comme ni ko Pape Matar de kebab nga xëy suba jox marché alors que en son temps il y a des Sénégalais qui étaient est Moustapha Ndiaye qui était où est euh, Moustapha Tall l'autre Tall qui était là où est euh, Bokar Samba Dièye bi nga xamante ne en des moments difficiles il a accepté en un moment daal fii si Sénégal avec la crise mu dem sacrifié wu dem jënd ceeb indi ko dans son pays pour le bien-être de son pays au nom de du patriotisme mais ñooñu quoi qu'on puisse dire avant ngay def quoi que ce soit au moins mais au moins nga contacté leen waxuma non seulement xaaroo ñu mettre mettre xaaroo déjà Euh, ñu mettre en place le le le comité mais au moins ñooñu nga xamante ni ne foo waxee média tudd Bougane mënoo wax football te tuddoo euh, Sadio Mané noonu la mel ak ceeb bi. tey mënoo wax waxu oto tuddoo Serigne nii. c'est pas possible dans ce pays mënoo wax affaire télévision wala Samsung wala quoi te tuddoo Serigne. d'accord donc boo mënu mun nangu aussi tey. Mhm. ñuy wax waxu ceeb di waxu diwlin. Mhm. ñi nga xamante nii ne ñëpp xam nañ ne ñoom si milieu bi lañ nekk ñëpp xamal leen si nga écarter leen dem jëli en vendeur de shawarma et on sait comment ça se passe. Mhm. parce que lors des élections présidentielles ceeb bi président daal dugal si àll bi xam nañ kam moo ko daan joxe. kooku tey la delloo njukkal jël ceeb bi jox ko ay anam yoo xamante ne ñëpp xam nañ ko. kan moo ko doon joxe. mais Yoran Ichan. très bien. Mm -hmm.